Veuillez recevoir mes salutations les plus chaleureuses, les plus respectueuses, ainsi que les plus distinguées. Notre discours d'aujourd'hui sera centré sur l'Afrique. Je nag ma de l'Afrique, ak yéen ci Afrique Sénégal waaw lan moo Afrique développer parce que suñuy parce que culture est nañu suñuy aada fàtte nañu ko suñuy idée ñu limité ko ak njiit yu incompétent complexe égoïste te ñàkk vision xoolal Afrique li mu am ci ay xéewal te mënuñu ko jëriñoo di ci jëriñ tubaab bi rek ñun africains yi sax gëmuñ développement Afrique ci làmmiñ rek la yem xoolal Afrique li mu am ci ay ci ay ressource minières naturelles yoo xam ne Afrique rek moo ko fi am wala bokk moo ko fi ëppale nga xool or diamant pétrole bi phosphate iranium, caoutchouc zircon manganèse cobalt charbon etc. Donc, l'Afrique est le continent le plus riche de la planète en ressources Nous sommes gën a pauvre ndax njiit yu jàpp ci baati seeni peuple sarax ko tubaab yi nga xool lu mel ne francophonie delloowaat suñu bopp ak njaam rek la monnaie franc CFA aussi monnaie unique africaine da nous gën foofu ndax amulul de Afrique. nga xool les pays yi nga xam ne France moo leen colonise ba pare garanti leen seen seen xaalis euh, li ñu am ci or buñ ko boole woon mën nañoo garantir seen bopp te bu ma juumulee France bu bu ma juumulee France moo ngi leen ci fayeeku lu toll ci quatre cent soixante quinze milliards par an te loolu mu ëpp foofu budget France ndax bu ma juumulee budget France mi ngi toll ci quatre cent cinquante milliards euh, kon loolu taxe la boo xam ne dafa cher. am na ay tubaab yu defoon ay remarque ne Afrique dina yéex a développé li fekk franc CFA dindi wuñ ko ndax lii ci fay couvrir na budget France ah, seen entreprise yi gën a mag ñu andi ko Afrique implanté ko fii muy daaneel suñu entreprise yi ba pare suñu eh, chef de d'état yi di leen favoriser Poutine président président Russie wax na wax ju am njëriñ bu dee moo ko wax bu ko waxul it ku ko mën a wax wax na wax ju am njëriñ nee africain bu amee xaalis compte bancaire am ma ngi bu feebaree France lay fajoo buy investir Allemagne lay investir buy consommer chinois lay consommer buy commerce Dubaï lay jëndee buy julli Rome wala Mecque lay jullee ay doomam Europe la ñuy jàngee buy def tourisme Canada lay dem États-Unis wala France bu deewee nag bëgg ñu suul ko Afrique dëkkam dëkku ay maamam fa mu juddoo mu ne kon africain yi Afrique ay cimetière lañ ko jàppee ay cimetière maanaam ay armeel moy laaj nak naka la mëna développer ay cimetière nga pan panafricanistes yi fi nekkoon té amone ay idéologie euh, pour te amone ay idéologie pour développer Afrique pour unité africaine États-Unis d'Afrique ñom ñëpp ay exemple lañ commencé ci Thomas Sankara Nelson Mandela Sékou Touré Patrice Lumumba Kwame Nkrumah Khadafi, c'est Anta Diop ba ci président Abdoulaye Wade mi kon ñun am nañu ay référence kon nañu gëm suñu bop té gëm Afrique te tubaab yi mënuñoo note suñu imam physiquement bëgguñoo note psychologiquement té lu ne def nañ ñu ko te lem lu ne def nañ ñu ko lu ñaaw lu ne def nañ ko suñu imam histoire Caaroy 44 guñu ko suñu mam yi ñu japp jàpp ca di len torturer guñu ko nous avons connu les ironies les insultes les coups que nous devions subir matin midi et soir parce que nous nous étions des des nègres kon Afrique kañ lay développé kañ la am indépendance kañ la ñuy avancé président africain yu bëri ay complexe lañu ay gouverneur la plus gën nuru ay président ku ci le gouverneur France bu Amérique Nous avons mel indépendance physiquement mais pas psychologiquement suñu entreprise suñu entreprise yaa daanu ndax entreprise tubaab yi école yi culture tout yi lañ fay gën culture africaine une banque yi façon col Leki, ak seeni comportement yépp ñu imposé ko bokk na ci li Afrique ñàkk consommer local ndax ñun amuñ indépendance ci li ñuy lekk amuñ indépendance ci li ñuy sol li ëpp ci li ñuy consommer importé la xalaatu tubaab yi lañ jàpp ne moo gën suñuy xalaat lu tubaab defar moo ñu gënal lu africain defar sama dàll sama montre bi sama yi sama diw France wala Amérique lay rek ngay dégg pourquoi ñun ñu complexe Occident yi euh, Occidentaux weex dafa gën ñuul wala dañ ñu ëpp xam-xam ñun ñoo ngi changé suñuy po di xeesal pour bëgg a nuroo ak ñoom ñoom ñoo ngi bronzé wu pour bëgg a nuroo ak ñun ñun roy nañu leen ci lépp roy nañu leen ci ni ñuy waxee roy leen ci ni ñuy doxee roy leen ci ni ñuy soloo Molière nee woon na nit boo koy roy royal la mu baax le waaye di roy nit bay roy na muy ñan ba muy na muy ñandoo loolu ak ndof la àgg ci ku jangul français wala anglais pour ñom jangoo amo xam-xam boy lak français joom ñu rétane la lolu complexe la euh, duñ ne tubaab baaxul ndax am nañ lu baax kon nañu jël le gën ci ñom te bàyyi leen nag la bonne ci ñom nañu leen def ay jumtukaay te bañ leen def ay royukaay il faut ñu xamné être libre ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres kon il jeunes yi xam leen ne avenir xam Afrique Thomas Sankara une jeunesse mobilisée est dangereuse une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques motax may wax vous les jeunes africains réveillez-vous soyez intelligents l'Afrique sera la capitale du monde mu mel ne ñun africains yi dañoo occidentaux yi buñu soxla utiliser ñu te seeni dépense Afrique la ñu koy jëlee mënuñoo dund sans Afrique mënuñoo dund mënuñoo vivre sans Afrique te toujours luy indi ay violation ci Afrique rek ci la ñuy dox di ñu jaay seeni arme di ñu jaxase ñuy xuloo ko xeex ñuy profité ci suñuy ressources te amuñ benn respect ci ñun. am benn président ci occidentaux yi bu fi waxoon ne Afrique pays de merde la kon ñun nañu gëm suñu bopp te gëm Afrique bokk na ci li tardel Afrique. L'État africain nous mënul développer la faillite politique le marché des consommateurs la négligence de l'agriculture l'inadéquation du système éducatif l'instabilité socio-politique la corruption euh, etc. Nous na ngeen développer sans langue et monnaie il faut nous responsabiliser sensibiliser les politiciens africains parce que les chefs d'État africain yi sont responsable des problèmes africains Afrique bu delloo ginnaaw yéen la bu avancé yéen la bu ñu yabee Afrique seen comportement la yéen yéen a war a taxaw ci problème mu Afrique mais da ngeen yokk Afrique ay problème malgré tubaab yi dañoo nootoon mais buñ la nootee da xool noo génn ca nooteel googu mais waruloo nekk corrompu boo xam ne da nga yeewaat sa peuple ci baat jaayaat ko tubaab yi yéen yéen a yoole Afrique problème Afrique rek yëpp yéen la euh, au lieu ngeen nag ngeen doon solution pour Afrique mais da ngeen mais ngeen def seen bopp marionnette tutuba bi am leen fun la te Afrique te jéem a xool nu ngeen di développer Afrique Nelson Mandela nee na quand tu te battis si dur pour te remettre debout ne retourne jamais vers vers qui t'ont mis à terre. dee leen jiital Afrique que intérêt Occident yi dee leen jàppale seen i peuple te bañ leen wor bu leen doon marionnette tutuba bi bu leen doon ay dicta ay dictateur bu leen doon ay corrompu bu leen doon ay politiciens don len ay politiciens amulou len Afrique ben njariñ comme si yéen fi représenté tubaab bi comme ay gouverneur ben comme ay gouverneur don len ci Afrique ay solution pour ñu mën pour mën génné africain africains ci situation bu ngeen donné ay complexe Afrique du massa luxe don len ay professionnel nek njiit yu exceptionnel don len ay panafricaniste te baña a doon ay égoïste doon leen ay référence pour ñu am ci yéen confiance am leen expérience am compétence am indépendance ci seeni finance ànd leen ak seen conscience te ngeen am classe te génn africain yi nag ci souffrance doon leen ay frère tey moytu luy indi guerre ci bi terre bu leen def luy tax tubaab bi di jàppe ay sœur doon leen ay ah, dooley dooley Afrique moy bolo mais pas ku ne di laaj indépendance yéen chef d'état africain yi yéen ay porte Afrique africain yi óolu leen ba dénk leen kele Afrique kele yooyu nak bu leen ko jox muku kuy foye Afrique pourquoi pas Union africaine Kwame Nkrumah ancien ancien président Ghana nee na li wor moy ñun africains yi dañoo wara trouver ay solution africaine ci suñu problème té lolu unité africaine rek moo koy may bu ñu tasaaroowee mën na nekk euh, faiblesse faiblesse la ñuy jural mais buñu ñu booloowee mën na nekk doole buy jëriñ adina Sékou Touré ancien président Guinée néna nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage Nous préférer pauvre té am suñu liberté dans ñu gën riche riche ba paré nek ay jam Thomas Sankara nee on peut tuer un homme mais pas ses idées nit ki man nga ko ray mais xam-xamam du fi juk Nelson Mandela néna l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde N'en éducation moy arme bi nga utiliser pour changer Adina. Obiangama pour pour développer l'Afrique il ne faut pas compter sur les occidentaux qui déstabilisent nos États Jacob Zoma nous voulons une Afrique forte et qui doit avoir un leadership en encourageant et non une Afrique que la France initie dans un processus de continuer à renforcer le pillage des ressources d'Afrique Cheikh Anta Diop nee na moo ngi gis ci jeune africain boo xam ne moo ngi toll ci sàkku xam-xam koo xam ne man na taxawal ab dëkk nee na kooku loolu luy nelaw ci moom la te def ko war a yee te éducation rek moo ko mën a yee Poutine président Russie nee na Afrique moo gën a riche Europe junni yoon ci ay ressources wante moo gën a pauvre Europe junni yoon ci wàllu développement nee na président africain yi bu ñu seen seen bopp je vous donne ma parole moo Europe dinañ daw si ñëw Afrique pour émigrer si kon ñun war nañu gëm Afrique te xam suñu bopp te ñu nak ay way ci côté spirituel bi ak intellectuel bi fu ci ne am nañ fa ay exemple ci côté spirituel bi man nañu jël fi ci Sénégal ku melni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qui avait une dimension spirituelle exceptionnelle une générosité intellectuelle extraordinaire Al Hadji Malick Sy un éducateur hors pair al Al-Haji Ibrahim Niass un vulgarisateur de l'islam Cheikh Bou un maître spirituel unique Sayyidina Limamou un guide religieux qui promouvoit l'égalité Cheikh Omar Fouti un résistant colonial qui s'est battu pour ses principes et croyances kon du côté intellectuel bi Thomas Sankara Nelson Mandela Sekou Touré Khadafi Kwame Nkrumah Patrice Lumumba Ofe boigny Cheikh Anta Diop petit président Abdoulaye Wade les guides religieux ont été des exemples typiques de l'émancipation africaine. Ils ont été fidèles à leurs principes, quelles que soient les contraintes. Les intellectuels africains ont dévoué leur vie pour le combat de libération de l'Afrique. Ils prônaient l'unicité africaine car c'est le moyen le plus, efficace plus, le plus efficace de faire face à nos problèmes. Les intellectuels africains ont dévoué leur vie pour le combat de, libération de l'Afrique, ils prônaient l'unicité africaine car c'est le moyen le, plus efficace de faire face à nos problèmes. kon ñun Afrique lañu am mom lañu xam mom lañu gëm suñu ndam Afrique dëkku suñuy Euh, Afrique Afrique de suñuy maam yow africain bi dem ami Guinée bul faté Afrique yow étudiant bi bayel xel Afrique politiciens, politicien bi sàmmal Afrique des chef d'État yi jëmale leen Afrique ci kanam yow femme af femme yow femme d'africaine bi gëmal Afrique yéen jeunes yi avenir Afrique Afrique dëkku teranga dëkku kersa dëkku jàmm dëkku sutura dooley Afrique mooy booloo nañuy dimbalante moytu culture Afrique ak civilisation africaine changé buñ nekk nit yu foo yàlla moo ñu may don suñu jikko dafa war a bon buñ nangu ku ñu jàppee ay con buñ ñu tourneloo en rond na Afrique nekk benn union la beauté africaine buñ ko fowee Afrique moom rek Afrique mon Afrique nous sommes fiers d'être africains la culture africaine est riche l'Afrique ce n'est pas seulement plus riche en termes de ressources minières mais le plus important, c'est sa ressource humaine. L'Afrique a une population très jeune, la plus jeune au monde. Les vraies femmes africaines sont des exemples. Nous, les Africains, on doit être des exemples. On doit développer l'Afrique, mais pas attendre que d'autres le fassent pour nous. Nous, les Africains, nous devons croire en nous. Si nous ne le faisons pas, personne ne croira en nous. Ne limitons pas nos, nos idées, la seule limite qui existe, c'est celle qu'on se fait dans nos pensées. Nous avons des ressources qui peuvent combler même les générations futures. Changeons de système. Remplaçons les vieux par des jeunes innovateurs. Misons sur la jeunesse, l'avenir. La meilleure des récoltes, c'est une jeunesse consciente. Croyons en nous. Nous devons être forts. Consommons nos produits locaux. Ainsi, nous serons indépendants. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, notre fierté. L'Afrique est la mère de toutes les civilisations. L'espoir du monde est la solution. Sa richesse minière et humaine fait d'elle une ruée. Oh, Afrique mère! L'Afrique est un continent de générosité en termes de connaissances. Elle dispose des ressources illimitées. C'est la diversité culturelle et de son savoir dans plusieurs domaines qui fait son originalité. Elle est authentiquement belle. L'Afrique est une terre d'originalité. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est la recherche du monde. L'Afrique est l'origine, la source. L'Afrique, c'est la vitalité. L'Afrique, c'est la diversité. L'Afrique, c'est le présent et le futur. L'Afrique, la puissance. C'est ici en Afrique que tout a commencé et tout finira ici. L'Afrique sera la lumière du monde. Donc l'Afrique, c'est la seule solution. Allahumma salli ala wa sallim.